asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki Sénégal mbokki jullit yi fu ab Sénégal yi mën a nekk ab jullit mën a nekk te ngay déglu suñu kàddu gi ñoo ngi lay nuyu tey nag dañoo ñëw

xalif généraux yi fi nekkoon yàlla na ni yàlla dool leer la ko dal sëñ Abdou Aziz Al Amine sëñ Sidi Al Muxtaar Mbàkke sëñ Cheikh Tidiane Niass ñëpp gis nañ kenn ku ne AIS dem na sukk sa kanam wax ak yow nga ñaanal ñu ñaax ñu soññ ñu ba nii may wax xalif généraux yi fi nekk muy sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg sëñ Babacar Si Mansour ak ak ñi nekk ñaseen ak ak xaadiri ak ñëpp dañoo ànd ak waa AIS di leen jàppale ngir ñu taxaw tarixa yi tey nag imaam Babacar imaam Babacar Ndiaye mu dem ci TFM ñu invité ko mu wax wax ju garaaw mbokk yi dafa am wax joo xam ne nit ki koy wax bu fekkee ne gimiñ gi daa forox wala daf feebar nopp yi koy déglu yor péng lañ nañ taxaw ci baatu tarixa mbokk yi xam ngeen ne bu ñu ne tarixa euh, du man maa ko sos du ma paate ko sos ma demba ko sos tariqa buñ ko xasee ba wax mooy tarixa yi fi nekk ñu xam leen muy at tijaaniya wal qadiriya wal laayeniya al muridiya mu ñeent tarixa yi ñu nekk Sénégal ñu xam leen kon man susu moko imam babakar ndiaye susu tariqa, tariqa dafa am ñuko endi, indi muy tariqa tidiane dugg fi tariqa xaadire nek fi tariqa murid nekvi, fi tariqa layene nek fi kon journaliste bi nga xam moy laaj muy papis bu ne ko tariqa yi yépp dañoo woote jëme ci yalla mu ne déedéet yemuñu daal di dugg ci ay détails naan bu fekkee ne tariqa bi dafa teggut ci alquran ak sunna mais kan moo woote tariqa fii ci sénégal ci mag ñi te am lalu ko ci alquran ak sunna déet da nga naan kay ñen nekk ca tarixa bu fekkee ne lañ digle ca tarixa ba defuñu ko booba la ñuy wax te loolu yaakaar na mag ñëpp bind nañ mag mu ne bind nga ña ngay woo ci tariqa bu mën doon muy ak wal qadri wal muridi kenn ku ne bind nga ne nii lañ war a jaar nii lañ war topp yontu sallallahu alayhi wasallam ak alquran ak sunna sallallahu alayhi wasallam ku ca jaar nag jaar nga ci jaar nga ci ku ci jadd jadd nga ci kon jàpp naa ne buñ tuddee baatu tariqa nga taxaw ne yemuñu loolu kuy diviser ak tàqale jullit ñi ak koo xam ne waruñu ko bay bàyyi muy wax ak fu mu mën a jóge loolu moom la bëgg indi biir réew mi di Sénégal te jàpp naa ne fii ñu toll nga xam tarixa yi fi lañ toll nga xam dañoo am yeneen noonu yoo xam dañoo taxaw seen kanam ba li ñuy wax ay tudd ay tarixa ki wér dóog lépp dañ ko jël sànne ko ci àll ba ne mag ñi fi jaaroon ñoo yàq diine ndax tarixa amut ci amut ci diine awraad yi muy wérdu yi ñu jël ko ne ay ay ay maanaam ay sirkiyaat la te loolu ñëpp xam nañ ñi nga xam ne ñoo tax di wax loolu muy wahabis yi jàpp naan ku am xel fi ñu toll te jàng nag sa sori te nga fanatisme anduk parparlo war ngaa jéem a jël wax yu mel ni nga sànni ko ci àll ndax it lu garaaw garaaw la imam babacar njaay wax tarixa yemuñu te nee naa leen buñ buddee tuddee baat tarixa du man maa ko sos du moom moo ko sos tarixa daa am ñu ko fi indi ña ko indi muy kàngam yooyu kenn ku ne sa ko teg ci alquran ak sunna si sallallahu alayhi wasallam ca ko teg am maa nag maanaam maanaam ñu mën tuddee parparloo wala bi la ñuy tuddee fanatisme wala ñuy tuddee maa ko sañ maa ko sañ wax loolu damay wax ne lu garaaw a garaaw te lu nar a yàq cohésion nationale bi nga xam Sénégal ñu koy dund yaakaar naa boo xooloon ca Sidi Hadj Malick si mi nga xam la mu wax ne at-turuq kulluha ila rahman Sidi Hadj Malick si waxut waxut tarixa yi yemuñu de dane at-turuq kulluha ila rahman musrat muskila jaani noonu la Sëñ Tuubaa waxee ci masal bi kullu wirdin yuuri muridan li hadrata wala bam jeex mag fi nekkoon ñëpp loolu lañ woote muy tarixa jëmee nit ñi ci yàlla suma wa taala yow boo ñëwee ba boo ñëmee ñëw ba jamono bi ñu toll nag nga xam ne julli ñëpp dañoo aajowoo nekk benn ak noonu am nga ñemee taxaw ci télévision ñu bàyyi la nga continuer di wax di wax ne yemuñu loolu kuy kuy tàqali julli ñi wala yeesu billahi taala mooy wax lu mel noonu kon ñi ko wax ne ñun AIS ñun nekk luñ fi ma sàmm nekk ñun mag ñi lañ fi nekkal tarixa lañ fi nekkal l'islam bi lañ fi mukk na kenn koo xam ne danga ngaa bëgg ñëw diviser Sénégal yi bëgg koo jaare ci turu ak kër te kër googu digaluñ la ko ndax li ngay wax ni wallahi sëñ babacar mansour digalu lu ko sëñ mawul ala abdou aziz digalu lu ko sëñ abdou aziz dabax ba mu jugee dem touba wa touba di ñëw tiwaawoon xam nga ne sa wax ji wal yas billahi taala wax ju melni ni dong mo taxon ñu ñu doon def seen tank kon ñi ngi wax imam yu melni ak oustad si warat kat mo xam murit wal xaadir wala tijaan naka jek ñun du du ma ne moom wax rek waye ñi fi ma sax ñep même ñu bok ci murid daan wax mel dama dañu taxaw dénoncer ñun wa ayes amul kenn ku ñuy baye donc nag imam Babacar Ndiaye mii li mu def lu garaaw garaaw la luy diviser luy tàqale julli ñi la te daray àdduna jël ko li nga wax sëñ Babacar Si Mansuur waxulu benn kenn koo man ndax ndax ñun ñëpp xamante nañ dañuy demalante dañuy dikkalante am maa boo ñëmee taxaw ci teefam taxaw naan tarixa yi déedéet yëmuñu te tarixa ay danaa la ay kangam ñoo ko sos bu xasee bu dudd baa tarixa da nga ko war a wormaal ndax kenn ku ne sa tarixa ko teg ci alxuraan ak sunna seen salaam bu ngeen jàngul nag da ngeen war a dem da war a da ngeen war a noppi te yenn wax yi day diviser day ndax jàpp naa fi ñu toll mooy nan la ñu war a défendre tasawuf ndax benn noon lañ am boo xam taxaw na neen tasawuf baaxut bokkut ci diine ñun ñëpp dañu war a dem jàngi bu baax a baax a baax ngeen gëstu bu baax xam naka lañ defaan tasawuf waaye waru leen a ñëw taxaw ci télévision yi di diviser julli ak di leen tàqale ci loo xam tegul fenn kon ñi ngi wax ne dafa war a excuser wu ndax li muy def ni lu garaaw a garaaw luy tàqale julli ñi la te cohésion nationale bi Sénégal am ñi ngi koy tas te waruñu ko war a may mukk mu taxaw ci TFM di wax lu mel nii